asalaamaaleykum mbokk Sénégal rawatina yéen ñu ñuy seetaan jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu ñu ngi fii ci biir jumaa bu Medina Baye ndaxte xam comme ni ngeen ko xamee rek ñu ngi waajal li nga xamante ne mooy guddi sang-sang yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu nag ñu fas yéene waxtaanee ki nga xamante ne moo di cheikh al ndaxte jamono ji kenn umpalewul ne Medina Baye day faral di dalal ay xeet yu jóge ci ay gox yu fasantikoo li nu mel nag di firndeel la dimension internationale de Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass ci loolu nag la ñu bëgg a waxtaanee tey di ci dalal nag koo xamante ne borom xam-xam la di seet waaye tamit di taalibe Maulana Cheikh Ibrahim ñas muy euh, ki nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamadul Mahi Alioune Cissé nekk le directeur général de l' institut islamique africain sëriñ bi gannaaw bañ la dalalee ba pare ñu ngi la naan asalaamaaleykum wa wa rahmatullah wa barakatuh. sëriñ bi suñu laaj bu njëkk rek euh, day aju ci nga xamal ñu kan mooy cheikh al islam alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin sayidina muhammadin ibni abdillah sayidi xalqillah wa ala alihi wa saxaabatihi wa man walah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel mboolem jullit ñi fuñ mën a nekk ci weer wi nga xam ne weer yi jullit ñëpp la feet la pour jullit ñëpp ñi koy feetu ak ñi ko feetuwul ñëpp ndax mooy bés bi nga xam ne bi ñuy fuglu mooy bés bi ñuy yàlla may xéewal ak yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne xéewal la pour àddina yëpp ndax yàlla moo ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil yoon yónni wuñ la lu may nga nekk yërmaande ñeel aalam yëpp moom sallallahu alayhi wa mu wax ñu ñuy gaarlu xéewali yàlla yi te bés yi bési xéwal yàlla la boo laajee kan mooy cheikh ibrahim radiallahu anhu laaj bu dafa mel ni laaj bu tuuti la waaye laaj bu mag la kan mooy cheikh ibrahim bu fekkee ku ko jur baayam alxaaji abdullahi ñas la tuddu yaayam aysatu jànq la tudd mu juddoo fii ci saalum fii ci tayba ñaseen dëkk bi nga xam ne baayam jooju moo ko sos muy alxaaji abdullahi moomu nga xam ne euh, euh, montagne la ci montagne yi xam-xam ak wilayatu ak maarifa xutbu la ci aqtaabi tariqa tijaniya moo ko jur moo ko yar moo ko jàngal alquran mu wëttu alquran ci ndaw xéwénal ak wëttoom mu jàngal ko xam-xam mu raw ci xam-xam fekk moom xale bu ndaw la kooku wax na ne waqad tamma fatxi inda mahdi wa qad anat jamiu rijal al xaybi taxta qadaai kooku nga xam ne wax na ne sama fatxu ci yàlla mat na fekk maa ngi ci sumal berso maa ngi ci lali maa ngi ci laytaay góori xay bu yëpp nekk ci suma ron atte kooku tim Cheikh Ibrahima la ci beneen démission dimension waaye Cheikh Ibrahim ci ci gàttal mooy muhibbu rasulillahi sallallahu alayhi mooy ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne tànn lu may li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn ba wax ne wa in tasaluni an habibi wa madhabi ujib bi rasulillahi xiina ujibu bu ngeen ma laajee lan mooy sama kan mooy sama soppi ak lan mooy sama yoon bu may tontu damay wax ne sama soppe mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama yoon mooy yooni yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo laajtee kan mooy Cheikh Ibrahim ci biiri boroom xam yi ba tey mooy ki nga xam ne yàlla may na ko mu dajeeg jëmmi xam-xam wax ne wal abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu bi duuni wahmi jaam bi dafa dajek jëmmi xam la dajek mu am ndigal gu wér boo xam ne ni amut benn defle amut benn làmbatu daj tuut xam-xam ci boppam moom la dajeeg Cheikh Ibrahim kon aalimun min ulama borom xam-xam la ci borom xam-xami jullit ñi nga xam ne ni yàlla indi na ko ci vingtième siècle bi nga xam ne ci lañ génnee mu nekk koo xam ne takkaay la boo xam ne yàlla moo ko takkal vingtième siècle bi mu juddoo waaye yàlla moo ko takkal senegal waaye yàlla moo ko takkal àddina yëpp ndax wax na ci làmmiñu sant yàlla ne lu tax yàlla amal ko awjadani xaqan li jibril kasri fa innani wakiilu sirri sirri yàlla daf ma amal dëgg-dëgg pour jàng dammu damm yi man maay ki nga xam ne maay wakiilu ki nga xam ne mooy sirru sirri bu yonent bi nekkee sallallahu alayhi wa sallam di sirru Cheikh Tidiane di sirru yonent boobu mu ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy représenté kooku mooy ki nga xam ne moom moo uutu kooku boo laajtee Cheikh Ibrahima nag ci beneen laajte boo xam ne moom Cheikh Ibrahima ci boppam laajte na ko boppam wa ayna barhaamu wa maa barhaamu xatta fanaw fii xubbihi wahaamu boobaa dañ leen delloo laaj bi rek waaye tontu bi fii du barabam jërëjëf sëriñ bi mu mel ni euh, ne euh, ki nga xamante ne moo di cheikh al islam dafa mel ni au niveau extérieur lañ ko gën a xamee lu ci mel ni masalan Nigéria bi nga xamante ne mooy exemple bi ñuy faral di di jël saa su ne ñu bëggoon xam lu nu mel depuis kañ la euh, Baye Niass kombal commencé di frotter wu avec le monde extérieur ak ban dëkk jamono ji mooy ci lañ ko gën a ràññee ci ay taalibeem au niveau international. Cheikh Ibrahim radiallahu anhu tukkeem bi mu njëkk a génn fii mooy mu tukki jox farataay lislaamam muy farataay xaj nga xam ne mille trois cent cinq ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tollook mille neuf ci la njëkk a génn génn goo xam ne dafa dajeeg beneen àddina pour gisanteek ñeneen i ay nit muy tukki boo xam ne mu ubbi buntu pour mu jokkaloog àddina yëpp ndax xaj gi ñëpp fay daje waaye ba aje ajee ajam gu njëkk gisee nag buur gi nga xam ne moo fa nekkoon ci jamono jooju muy Malik Abdul Aziz ndax tontu na ko ci ay laaj yu ko benn journaliste saoudien laaj waaye ci ajam googu dajee naa fa boroom xam-xam yu bëri yoo xam ne nii jox na leen ndigal ñooñu dellu seen dëkk yi loolu mooy li njëkk a tasaare ak yoonam ci biti Sénégal ak Gàmbeek Mauritanie ndax foofoo ci ajam googu la dajeeg Amir Kano muy Abdullahi Bayero nga xam ne nettali nañ xisaam lu bari ñëpp xam nañ ko walla ñu bari xam nañ ko alaayati xaal buur la woon di buuri kanu ci jamonoom tijaan la woon tim jiitu na mu nekk tijaan ndax eh, Cheikh Omar al Fouti dem na Nigeria kon dugal na tariqa tijaani foofu ku ñuy wax Chérif Oujdout nga xam ne ba tey magi la Mouhamad Mahmoud Mouhamadul Kabir doomi Mouhamadul Kabir la nekkoon na foofu kanu kon fekk na tariqa tijaani nekk foofu waaye fekk na buuri kanu mu ngi mébét bokkoon na ci ay mébétam mu dajee ki nga xam ne mooy aji mat ak waxtu bees lu ci moom ba mu demee aj mu dajeeg baay ci seen aj googu ma dina mun a waral lañ daje baay nee na buur bi moo mujjoon nekk sax di bëkk néegam di ko liggéeyal mais am na yeneen muxaddam yoo xam ne ci xaj googu la baay dajeeg ñoom ndax euh, Ali Tayyib euh, ci la bokk nga xam ne moom shérif la boo xam ne Medina la dëkkoon bokkoon na ci ñi bees lu ci baay tey ay njabootam ñu nga fële ci Indonésie daanaka silsilaam moo ñu gën moo gën a tasaare tariqa yee ci Indonésie waaye jàppoon na ci baay bees lu ci moom ci ajam njëkk gannaaw boo xamee ne moom nekkoon na Indonésie dëkk fa gannaaw gi la hijraha dellu Madina Munawara Madina la génne àddina waaye ba léegi njabootam ñu ngi foofu ci ci ci Indonésie kooku jàpp na ci Baye ci ajam googu emut foofu waaye Baye dafa wax ne moom moo ko junj pour mu pour mu beesalal américanu tariqa Baye beesalal américanu tariqa ci ajam googu nga xam ne am na yeneen seti imaamu Shafii yi mu tudd foofu nga xam ne jàpp na ci moom waaye amir bitim tim jàpp na ci moom ak ñim àndoon nag am na ku ñuy wax. bul qaasim jineena nga xam ne moo doon xalifa Baye ci ci ci ci Soudan ndax gis naa leetar bu mu bind Baye di ko wax ne alhamdulilah jot na leetar bi nga ma bind di ma def may sa xalifa fii ci Soudan kooku tim ci magi tijaan yi la woon mu nga nekkoon Daafur lii Daafur bi ngay dégg nii nga xam ne tey eh, daanaka ñëpp tijaan lañ te tijaan ya fa nekk daanaka ñëpp tim taalibe Baye lañ ba tey Abul Xaasim moomu kenn la woon ci ñooñu nga xam ne ci aji baay boobu la jokkoog moom bees lu ci moom euh, tariqa tijaaniya amir kanutim ci aj googu la jàpp ci baay bees lu ci moom tariqa tijaaniya bàyyi ne liñ nekk ci aj yëpp amir boobu moo ko doon nekk bëkk néegam sax di ko liggéeyal nga xam ne def nañ ci Medina Munawara ñaar fukki fan ak benn door faa jugee dem Màkka ñaar fukki fan ak benn yoo xam ne bàyyi mas tëddañ di ko fàttaliku ba ci diiwaanam mu ngi wax ne bi tayibi ayaamin bi jannati taybatin wa tadkaaruha indi alazu wa arsaxu def naa Madina Munawara tayibu ayaamin tayibu moo tolloog ñaar fukk ak benn ay fan yu teey yu tolloog ñaar fukk ak benn ci tayba bi nga xam ne mooy madinatu rasulillahi wa sallam moom mu ngi ko tuddee jannatu taybatin ndax moom mooy at jànnaam amut fenn fu muy noppaloo lu may bu nekkee bu nekkee Medina waxoon ne xayaati bi Sénégal wa taybatu jannati wa juddata min duuni ljinaani saraatu wa in massa abdun an yuqiima bi juddatin fa sabran fa haadaka almaqaamu ribaatu waxoon na ne ci ca loolu mu ngi ko wax ci rexla boobu ajam googu njëkk googu ne sama Sénégal laay dund waaye nag Tayba kuy madinatu rasulillahi sallallahu alayhi mooy suma aljanna bu ma nekkee jidda dafa mel ni jidda dafa mel ni siraat bu dox suma digganteeg sama aljanna jooju muy madinatu munawara waaye bu fa nekkee dafay mel ni ku nekk ci ribaat nga xam ne mooy fàndu yi nga xam ne mooy ci xeet la ci ñi nga xam ne dañuy war a garder dëkk bi pour noon yi buñ dugg nga xam ne xeet la ci jihaad foofu la ko amir boobu jàppee ci moom tariqa tijaaniya gannaaw loolu dellu delluwut Nigeria lu may gannaaw juróom-ñeenti at la dellu euh, kënu ci mille trois cent soixante ndax cinquante cinq la demoon aj ci ci ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye toog na juróom-ñeenti at ba 1364 mu delluwaat foofu pour mu door a dem moom Nigeria pour euh, ziyaara ji euh, Nigeria ziyaare buur bi ak taalib yi nga xam ne àndoon nañu moom jàpp ci moom fekk na boobu kenn xamu ko foofu moom moom kenn moo demal boppam moo teel boppam cartable am ba mu demee ba ci buntu buur kënu bi taxaw na di laajte ba am koo xam ne nii moom àndoon naag buur bi ci aj gi ba mu ko gisee xàmmee ko moo dem wax buur bi ne ko Cheikh Ibrahim mu ngi fii ko boobu lañ mas gis buur bi kënu muy dox euh, te salut dàll salut mbaxanaam ala ay xaal bàyyi def na fa juróom-benni fan juróom-benni fan yu barke bàyyi na fa téeréem bu ñuy wax kaashiful baas am na ay borom xam-xam yoo xam ne dañ daan ñëw ci moom am na ku ñuy wax Aboubacar Mijinyawa koo xam ne borom xam-xam la ci tariqa bi ku taalif ay téere la taalib bi jël na ci Sidi Ahmed Sukayrij ja ñoom maalam Sani Kaafanka maalam Tidiane Ousmane ñi nga xam ne ñoo ay taalibeem lañ waaye boobu dañuy dem ci baay bu ñëwee daf leen di laaj na ana seen xutbu bi waaye bés moom tëdd mu gis yonent bi gis Cheikh Ahmed Tidiane eh, mbo am mbooloo mu gis yonent bi jiital baay ci mbooloo moomu ba mu génn ba eewoo bay taalibeem yooyu ñëwee daf la leen ana suñ xutbu bi yàlla kum nar a baaxee am na may yoo xam ne du jaar ci sa wàll mukk lu may xeñtu nga ko waaye bés boobu nga xam ne moom ci la gis baay ba nangul ko pour xëy sax dem ci moom fekk na baay jugee na foofu euh, ku loolu moom mooy yoonam bu njëkk ci ci Nigeria aj delluwaatut aj lu may gannaaw fukki at ak juróom waaye gannaaw fukki at ak juróom yooyu daanaka amul benn at boo xam ne bàyyi na ko lu may aj na ci te aj nekkoon na buntu pour muy dajeeg àddina bi yëpp ñi nga xam ne mën nañoo ñëw ak ñi nga xam ne mënuñoo ñëw ndax wax naa la ne kii xalifaam ci Soudan muy Abul Qasim ji na ci ajam googu la la la moom te Abul Qasim masta ñëw Sénégal waaye tey jii ay taalibeem ay daafour waxtu wu nekk ñu ngi ñëw ci aj gi ci aj googu tim la la dem ziyaare Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu muy yoonam bu njëkk ci fas ci aj googu la dajeeg Sidi Ahmed Soukayrija muy ba tey muy jotaayam bu njëkk ak moom boo xam ne jotaay bu barke la boo xam ne wax nañ ne Baye wax na ne ci guddi benn guddi def nañ ci loo xam ne moog Sukkari ja euh, xajut ci ay weer waaye ba ba ko Sukkari ja gisee radiallahu anhuma baat bi mu njëkk a wax def ne zaatun min an-nuuri tajassadat quluha ni jëmm joo xam ne ci leer la formé woo ngeen la wax leen baat boobu ànd ak man ñun tim ñu ngi koy wax ba léegi di wax ne zaatun min an-nuuri tajassadat ba muy tàggoog moom tim Sidi Ahmed Sukkari ji li ko doon wax mooy lillaahi darru abin wala dëkk bàyyi ji jur moo baax ndax du ne def ko jur rek waaye moo ko jur jàngal ko gannaaw loolu la ñi nga xam ne ñoo njëkk a jugee Nigeria ñëw fii ziyaare ko gannaaw benn at ci ziyaareem moom Nigeria mooy maalam eh, Tidiane Ousmane ak maalam Sani ak beneen muqaddam bu ñuy wax Mazad maalam Tidiane Ousmane gaaw naa génn àddina waaye maalam saani kaafanka ñu mujj a juddu sax ku ci ku ko xamoon dan nga ko da ko mën a xàmmee ci gan ñi ndax dañu di ñëw gàmmu fii ba am na benn gàmmu Cheikh Abdoulahi Haaj Abdoulahi dafa wax ne dëgg-dëgg ku mel ni maalam saani mii tey jii am na ngàntal ñëw gàmmu bu doon seet moom ndax dem na ba mënut a dox waaye noonu lañ àggoon ci ñëw jàppalante ak moom ci gannaaw loolu ci lay door a yónnee Hadi Ould Sayed mi nga xam ne ba tey eh, ambassadeur am la mu ko doon yónni foofu muy dem di ko yónni ci Nigeria di ko yónni ci gaana mu gannaaw ñi jàpp ci baay yëpp ci mag ñi foofu ñu mel ni maalam Tidiane Ousmane ñu mel ni maalam Sani Kafanka ñoo ñëpp bi ñëwee Baye Seydi Ali la leen booleeg moo leen tarbiya waaye koo gis ci magi taaliba yooyu foofu rek ñaare ku ci tarbiwul ci Seydi Ali rek ci eh, Cheikh moomu ci la ci la ci la tarbiya kon xam nañ ko ci aalam bi yëpp saudia xam nañ ko fa xameel boo xam ne nii bu ràññeeku la ndax muy seeni buur yëpp ci jamonoom xam nañ ko jëflante ne ñoo moom ku mel ni Malik Faysal njëkk muy doo Malik bi nga xam ne nii moom moo nekkoon walil ahd dajee naag bàyyi teral ko ba bàyyi di wax ci ay ci rexlaam ñaareel bi waqat saqaanil faysalul wasiru كأس الشراب وهو بي مسرور لكنما الشيخ التجاني حضر معي وما أحب سي درارا ki nga xam ne mooy Faysal nga xam ne boobu ministre la jox na ma nandal na ma teral na ma nga waaye Cheikh Ahmed Tidiane dafa teew ak man bugut sax ma jox Faysal mbooti tariqaam bi kon al xaasu lil xaas wal aam lil aam noonu la doon jëflanteeg addina bi yëpp addina bi yëpp la jëflanteeg ndax ñi nga xam ne àgguñ ci dugg ci lislam sax jëflante naag ñoom ci cadre doomi aadama ndax bu fekkee ne yàlla daf laa indi pour nga jang dammu damm wi te yow mën loo jàng lu may damm-damm ab julit man loo jàng dam lu may damm-damm koo xam ne yaa moom yéen bokk ci cadre tarika wala yaa moom yéen a bokk ci kadri dëkk ba tey yow sa sa sa donn dafa am fu mu em waaye ki nga xam ne nag donnoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa couvrir addina yëpp couvrir xeet yëpp couvrir euh, façon yëpp ak diine yëpp moo tax moom àddina yëpp la taalaloon loxo ndax ku ku ku ku ku jëflanteeg moom rek boo dugg ci lislaam tim da nga naw diine lislaam da nga bëgg diine lislaam moo tax euh, ku mel ni Kwame Nkrumah xam nga ko duutoon julit waaye Baye mu ngi doon jëflanteeg moom ci cadre nit ak nit ndax africain la te ñiy goreel ñi doon góorgóorlu pour goreel Afrique ci lañ bokk moo tax daf ko doon ñaanal di ko dimbale di ko saanada ku mel ni Yaakub Gowon mi nga xamee ne ni xam nga ne bia euh, guerre yi Biafra bi am na Ojoko moomu nga xam ne ba léegi yaa ngi koy gis ñaan ni Baye mu ngi ci kawam ci jamono jooju ngir taxaw bi mu taxawoon pour tas Nigeria Baye dafa taxawoon pour euh, dimbale Kwame Nkrumah dimbale Yaakub Gowon Yaakub Gowon du jullit turam bi ne na tur julit waaye du julit Baye daf ko doon dimbale ba moom ci boppam wax na ko ci interview boo xam ne def na ko ak euh, Baye Thiam euh, Zeyna wax taxawaay bi ko Baye woon ci jamono jooju bind muqaddam yi leetar ci Nigeria wan leen ne bépp ngànnaay bu ngeen am ci baatin na ngeen ko jëfandikoo na ngeen ñaan yàlla ci noon wi nga xam ne tey jii dafa bëgg a taxaw pour tas Nigeria te waxuma la Nigeria mais Afrique yëpp dañoo war a nekk benn benn benn réew kon nag renjir sax ñi setaan mu tas loolu warta nekk loolu tim war nañ koo lancé at tey ndax Nigeria ñu ngi eh, jànkuwanteeg xew-xew yu mel noonu dem na gaana ay junney junney nit jël nañ lislaam ci taxawaay ci benn ci benn jotaay ci yande ba wax ne laqantu alaafan walan tuadda kalimati tawxidi faatul adda jox na ay junney junney nit lislaam ci benn jotaay ñoo xam ne mënuñ leen a lim ndax passé nañ lim kon ñi lim ñoo lim ba ne ñetti eh, junney nit waaye moom mënul leen a lim dégg nga wax foofu wax joo xam ne mooy moo ko tax a jóg ixtalafat alsunuhum wal aqdu muttaxidun xaqan li rabbil hamdu seeni làmmiñ uutee na waaye pas-pas bi benn la mooy shahadati an laa ilaha allah wa anna rasulullah feneen mu wax te loolu yëpp lan la ci doon am mooy nit ñi rek jub pour mu sawe leen wa qultu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l ilahu wa qaalaha al kuffaaru wal wa wal umara wa taabati nufuusu mu koy wax ci rexla gaaniya bi nga xam ne moom lañ boo rek rexla Mauritanie mi nga xam ne mu ngoo nekkoon soixante onze ci hijriya waaye nekk cinquante et ci gàddaayi yonent bi euh, euh, nekk cinquante et ci miladiya foofa xeet yëpp dugg nañ ci euh, ci moom dugg nañ ci ci tariqa bi dugg nañ ci lislaam ci loxoom tukkeem yooyu dara taxuleenoon a jóg lu may euh, jokkale diina ji rek ndax ci rexlaam boobu muy dem Mauritanie da wax ne maa ngi ñëw ci alhamdulilah bi amin kaana sirtu ila xayin muraadi kaana xayi bani ali bani zahraay asli tariqa cheikhina algarraai ba ca biir mu wax ne alima xaaliqi bi ann safari maa fi xazm min xududi bashari yàlla mi ma bind xam ne ne suma suma tukki yi benn cëri doomi aadama nekku ci ut dépasse cëri doomi aadama la bëgg a siiw cëri doomi aadama la bëgg ñu xam la loolu yëpp ci cëri doomi aadama la waaye moom tukkeem yi dara nekk ci woon ci cëri doomi aadama lu may dafa tukki ngir yàlla wax ne kul siiru hamdan liman fi zikrihi qul siiru maa ngi sant yàlla ci rexla boobu mooy rexla bi mu njëkk a def gannaaw rexla ajam tukki bi mu njëkk a def nga xam ne ci la dem ay Conakry wër Maleeg yooyu yëpp dem tukki boobu lu ko commencé mooy maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo wax ne na ngeen dox ci kaw suuf ndax dox ci kaw suuf nit mën na cee mën na mën na mën na cee waadoo waaye nit moom dafa nekkoon koo xam ne dafay dox ci kaw suuf ngir waade ci kaw suuf ngir nit ñi ndax ci buntab sant yàlla ne Cheikh dem na. dëkk yu bëri waaye dëkk bu mu mas a dem rek dafay dana jàpp ci sëriñ si fa nekk jëriñi si ñoom waaye yàlla may na ko am na taalibeem boo xam ne dëkk bu mu mas a dem sëriñ si ñooy ñëw jàpp ci moom jëriñu si moom kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu fépp fu ñu géewalee borom xam-xam ci àddina bi dem na fa ñi géewal ko foofu nangul ko xam-xamam tukkeem bi mu njëkk a tukki mi nga xam ne moom lañ commencé muy ajam googu saxafi benn journaliste laaj na ko foo xanaa ba mu waxee ba pare mu ne ko yow xanaa azhar nga jàngee mu ne ko déedéet sama baay moo ma jàngal xanaa sa baay azhar la jàngee mu ne ko déedéet sama baay ci baayam la jàngee kooku ne ko man xaw ma ne foog ma woon ne xam bu leeree nii dana génne lu may fu mel ni azhar waaye du ko bàyyi tontu mooy xamul ne leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu nekk gannaaw loolu ci jëflanteeg rabita nekk oddu mu assis ci rabita alamil islami dem na ba Karachi ngir dajeeg mbokki jullit ñi dem na ba Siin te mu ngay wax Karachi bi a xallaftu ahla mawaddati humu nasaru diina nabiyi fi ala maa ngi bàyyi samay soppe yi ca Karachi lu tax ñooñu nekk soppeem ndax dimbal nañ diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na fu nekk ci àddina ba wax ne asiixu ila kulli lbilaadi laallani ara amali fi llahi wa huwa kabiru damay dox jëm ci àddina yëpp amaana ma gis sama bëgg-bëgg ci yàlla te bëgg-bëgg boobu lu wér la lu màgg la bëgg-bëgg boobu mooy ku bëgg defaru ñu defar la ku baaxoon bëgg gën a baax mu gën laa baaxal ku manqué woon te mën a mat mu matal la ku doon ut yàlla war koo xam xamuloo ko mu àggale la ci loolu jokkale nit ñi effacé effacé yi nga xam ne moom moo barrage yi nekk ci diggante nit ñi dem nga xam ne àddina yëpp wërngal këpp def na leen ñi nekk ay ay mbokk làkk mënta jaxase nit ñi ndax fii nii ñi toog nii rek boo doon laaj nit ñi léegi seen lakk yi ku nekk ñii ngi jugee Amérique ñii ngi jugee Ghana ñii ngi jugee Nigeria ñii jugee Burkina Faso ñii jugee bene ñii jugee Togo te duul luñ programme pour ne dañoo bëgg a eh, gis ay nit ñoo xam ne dañoo jugee feneen ñi ñëw te loolu lu ndaw la ci li nga xam ne moom la gàmmu nara jëmmal nga xam ne fu nekk addina bi bàyyi yéeg na lu nekk pour fekk addina alawtul bihaara zaxiraati wa innani alawtul qura wal mudna balhal jibala arumu rida albaari li nusrati diinihi wa ubrizu lil jiil jadidi misaala tukki na nee na géej yi jël naa avion yi kawe naa montagne yi dox naa ci jéeri ji war ci géej yi loolu yëpp ngir sàkku ngërmaane yàlla sàkku ngërmaane yàlla tim ak wan maas gu bees gi yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar dëgg-dëgg yoon wi nga xam ne moom la rëddoon tey jii nii li mu wax ne maas gu bees gi yoon wi ñu war a jaar boo ko xoolee mooy ba mu demee ba ne daifun alilun shaibun mutahammisun li yansura diinan laa yuridu qitaala xam ne dem na ba màggat waaye taxut mu ñàkk courage tey la gën a sawar tey la gën a am itte pour tasaare lislaam waaye bugut ko tasaare ci xeex nga ne ko lu tax mu ne la du ne damay ilga jihaad waaye yonent bi sallallahu alayhi wa moo li anna nabiya alhaashimi dahra maa gaza balaa sadda udwaanan wa radda dalaala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama masta songu ngir xeex rek ngir xeex waaye dañ koy tooñ muy fayu wala ñu taxaw ne bugg a def fitna ne leer yàlla gi du fi continuer mu xeex ak ñoom waaye yoonam duutoon yooni xeex Mawlana Cheikh tim yoon boobu nga xam ne moom la tànn nañ kool àddina tey fu nekk mu ngi fay yàqoo tey te fu muy yàqoo yëpp ñu ngi ciy tudd di eh, eh, ñu ngi ciy tudd jullit ñi tara rey rek moo fay moo fay moo fay résultat te àggalewu nit ñi ci dara te loolu taxutoon a jug lislaam kon nag li mu waxoon ne mu ngi génneel jiilil jadid bi missaal bi missaal bi mooy lislaam boo xam ne lislaam yi jàngale la lislaam boo xam ne lislaam yi eete la lislaam boo xam ne lislaam yi eh, jàmmoo la ak déggoo ak dimbalante ak bañ a xeebante loolu mooy yoon bi nga xam ne moom la jaaroon yoon woowu nag ma ne jëm na ci àddina yëpp jëfandikoo na mooy yim am yëpp pour àgg ci nit ñi pour wax leen ko waaye tey jiitim yàlla def na àddina yëpp ñu ngi jëfandikoo mooy yi am pour ñëw fii tey dana am ñoo xam ne dañ toog ba ba avion la ñuy jël wàcc ziyaara fii kenn du leen xam ci guddi googu ñu dem ñibbi am na ñoo xam ne avion la ñuy jël def fi ñaari fan ñibbi am na ñoo xam ne danañ dugg ci oto yi ku mën a dugg bato danga ci dugg ku am na ñoo xam ne ci sareet yi la ñuy dugg mooy yim jëfandikoo yëpp pour àgg ci nit ñi tey jii nit ñaa ngi jëfandikoo mooy yooyu yëpp pour àgg si fii pour wane seen sant yàlla pour wane seen sant yàlla ndax gàmm duut lu barab boo xam ne dañ faa daje ay jullit di fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi di jàng ci ay siiraam di jàng ci siiraay saxaaba yi nga xam ne nii ñoom la defar bañ gën a baax ñëpp ku bëgg baax il faut nga xam leen il faut nga jaar ci seen yoon gàmmu loolu rek la ku ko firee leneen yaa ko firee yow yow yaa yow yow yaa xam loolu waaye ñun gàmmu xamuñ ci lu may lii ziyaarante ngir yàlla fu mbooloo dajee nag pour ziyaarante ngir yàlla danañ leelante yàllaa ko santaane danañ nandalante yàllaa ko santaane danañ ziyaarante yàllaa ko santaane danañ dundalante suñ alal dundalee suñ alal ci yàlla yàllaa ko danañ xamante ci suñ biir jaxal jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu danañ xamante ci suñ biir waaye danañ dimbalante ci dox dox bu gën a baax pour jëm ci yàlla danañ bee salaat kóllëre gi nga xam ne tim yàlla moo tax ñi takkoo loolu kóllëre googu nga xam ne moom lañ am a Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ndax ku nekk mën ngaa dem fu la neex jàng ji dars rawatina nag foo xam ne boo fay dem dana wér ne da fa fekk koo xam ne du ne daf lay jàngal dars rek waaye lim lay jàngal dafa daf koo jëfee ba pare ndax ñi doon yonent bi sallallahu alayhi bokkuñ ay maratib seen maratib mutafaawite seen i darajaat dafa utee am na ñoo xam ne fex nañ ba doon ci wax yi doon wax baax na waaye doon xaal moo ko baax doon nu jëf doon donn wax baax na donn jëf ku gën a baax donn xaala ku gën a baax ku mën a boole yëpp nag kenn gënu la te mbooloo mi dara taxu koo jóg lu may jàpp nit ñi rek jëmee leen ci saraatul mustaqim ndax Cheikh Ibrahima lu waxoon mooy ne soxbatuna fillahi wan naa ji min naa yaaxusu bi yadi axihi suñu àndoo ci yàlla la ku mucc rek dana jàpp ci ci loxol kenn keneen moo tax àddina yëpp tey bés bi ñuy jublu balañ cee àgg naa dañ ci àgg ci jàmm ku nekk fu nekk rek àddina nit dana fa jugee ñëw fii pour teewe loolu pour sant yàlla pour beesalaat sa kóllëre ak yàlla loolu nag yàlla moo may Cheikh Ibrahim ci ndonoom gum doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi dafa waxoon ne ma min nabiyin illa utiya ma mislu amana bihi qawmuhu wa ana utiitu waxyan wa arju an akuna aksarahum taabian amul benn yonent lu may yàlla dana ko jox loo xam ne nii moom la ko aw nitam di gëmee man nag wax yu lañ ma jox alquran gii lañ ma jox moo tax maa ngi yaakaar ne yonent yooyu yëpp maa leen di ëpp topp wax yu boobu nga xam ne moom lañ jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi tim radiallahu anhu moom la ñaan yàlla mu defal ko ko muy karaamaam ba ba ba ba walee bufta bi ba ba jaam yi dekkee karaama boobu tim moo ko may yàlla jox ko mbooleem xeet yëpp ñu ngi ñaan yàlla ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm bàyyi ñu ci jàmm xiw indi xiw Sénégal dellu bàyyi fi xiw yóbbaale xiw ci seeni i dëkk kullu amin wa antum bi xeer wasalaamaaleykum wa jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal di wax rek ne temps bi ñu cëraloon moo mujjee jeex bëggoon nañ sa aborder benn beneen point jëm ci euh, lan moo tax ñuy woowee ki nga xamante ne moo di bàyyi Cheikh al Islam wante yoon yamul si benn xanaa di wax rek ne waaw incha allah <laughs> voilà li nga wax rek de déjà loolu ëmb na ko xanaa di la jaajëfal di jégalu ci toogaay bu yàgg bi di wax rek ne ñu ngi woon fii ci fi nga xamante ne moo di euh, jumaa bu mag bu Medina bàyyi doon waxtaanee nag ci euh, la dimension internationale de Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass jëm ci tamit gàmmu ndaxte Baye kenn ñëpp xamoon nañ ne bu gàmmu teroon teru woon bu weeru gàmmu teru woon lépp li nga xamante ne daf ko doon def maa ngi dégg ci mag yi ñu naan lépp daf ko daan yokk rien que rek ngir mbëggeel bi nga xamante ne am na ko si sang-sang yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax rek na seen télévision nationale nag moo àndoon nag yéen ak ki nga xamante ni moo di euh, Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé nekk tamit le directeur général de l' institut islamique africain fii ci Medina Baye ngir waxtaanee Cheikh al Islam jëmale ko ci gàmm wasalaam beneen yoon.